mbokk yi bu ngeen bëggee ay xibaar yu wér te wóor visité leen suñu site internet asalaami point net wala ngeen visité suñu chaîne YouTube asalaami TV mën ngeen ci abonné sax su ngeen bësee ci bouton bu xonq bi bu leen fàttewaale bësaale cloche bi ngir bépp xibaar boo xam ne dugal nañ ko ngeen mën di ko am ci saase moo xam ay reportage la ay émission ay documentaire yu am solo lépp rek ngir jox leen ay xibaar yu wér te wóor ñoo ngi ci réseaux sociaux yëpp moo xam Facebook la Instagram ba ci Twitter fu ngeen ci dem rek daa ngeen fa fekk xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di jox muy bàyyeekoo ci Assalaamy ak Assalaamy TV jox leen ay xibaar yu wér te wóor rek mooy suñu yitte. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taaliba yi mbokki ñu topp seen site internet Assalaamy TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax eh, te di leen ziar di leen jaajafal bu baax a baax di ñaan sunu borom doon leen a taxaw bu baax a baax di am mbégte tey ci seen tawaay bu am solo fii ci kër maam Cheikh Ibrahima mu Babi Mouridina muy kër Serigne Cheikh jëmm fii nga xamante ne bii daaray alali maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom ñooy ñi nga xamante ne bii ñooy liggéey liggéey bu tedd bii nga xamante ne bii mooy alali maam Cheikh Ibrahima ay jàmbaar lañ yoo xamante ne bii dañoo ñëw rek ngir fas yéene yeesal kër gi nga xamante ne bii mooy kër Serigne Cheikh Jëmb waaye yeesal tam mbaar mi nga xamante ne bii mooy mbaarum Serigne bi itam eh, di eh, mbaarum ndog yi nga xamante ne bii fi lañu xam nga fii la ñu togg yi Cheikh Fall yi xam ngeen ne ah, ah, ah, weer wu jot bu nekk weeru koor njabootu Cheikh Fall yëpp ñëw ngir rek àndandoog liggéey bu tedd bii nga xamante ne bii ñi ngi ko fiy def eh, xam nga ne buntu ko Cheikh yëpp ak seex yi seex Ibra yi nga xamante ne bii ñoom ñe dañoo aju Serigne Cheikh Jëmb weeru jot fii la ñuy ñëw di togg yi mbaar mi nag la alali Cheikh Ibra Fall taxaw ngir yeesal ko yaakaar naa ñëw ngeen fi ay yooni yoon tey nag di yaakaar naa coulage bu mujj bi nga xam ne mooy mbaar mi ngir rek waajal koor gi ci sunu kanam di ñëw di ñaana Serigne Cheikh jëm mu yàgg fi lool te wér ñuy ay jàmbaar yoo xam ni rek bañ jàppee ba tey bàyyiwuñ guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñi ngi jaayante guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñu ngi fas yéene rek lépp loo xamante ne sëriñ bi bëgg na ko ñu di ca dox guddi ak bëccëg suba ak ngoon waaye di ziar baax sëñ Omar mi nga xamante mooy ne bi ñoo ne fi sëriñ bi muy sëriñ Mëgey Ñaang ak sëriñ Omar Dumbuya di ñaan sunu borom mu dool leen a taxaw bu baax a baax a baax baax waaye ziar murit yi nga xamante bi tam ñoom it bañ jàppee ba tey bàyyiwuñ xam ngeen ne saa su nekk mooy ñiy teew ak ñi nga xam ne seeni poosay teew saa su nekk itam ñuy tàbbal seenu ñàkk ci biir liggéey bu tedd bi eh, tey nag ñu ñëwoon ci coulage bi nga xamante ni bi tey ci talaata ji lañ ko dàkkoon ngir rek àndandoo eh, yeesalaat eh, li jëm ci mbaar mi ci coulage bu mujj bi ngir fa yéene rek jublu ci wàllu raax ak karoog yu mel noona ngir ya xëccantu xëccu rek daw balaa koor gee ñëw ndax xam ngeen ne mbaar mi mooy mbaar mi nga xam ne fi la ñuy togg ndog yi waaye ku xamoon mbaar mi démb xam ko tey di nga xam ne Serigne Cheikh jëmm mi fi nekkal Cheikh Ibra Fall tey mboolem murid yi wuy si nañ ko xol yi jox nañ ko seen bopp ngir rek fas yéene ànd ak moom ngir joxuñu maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima ñu ko joxoñoon ndax moo ñu waxoon na fii ma toog ba bis penc ko fi toog bu diglee def leen su teree ba leen su laajee jox leen su woote wuji leen su xamul ma xamal ko su amul ma amal ko su mënu ma mënal ko maay fayta du ma jeel kooku mooy jëmm ju tedd ji tey di maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ko fi yàlla yàggal eh, jaajëfal baax Assalaamy TV doolee ziar bu baax sama nijaay Sëñ Fallou Gala Silla ñaan son borom mu defal ko tawfeex baax a baax waaye ziar El Hadj liggéey bu am solo bi ak mboolem eh, su nekk yéen ngi ñëw di nemmiku liggéey bi yàlla na ngeen ci daje ngërëmal maam Cheikh Ibrahima maa

Ibra Fall sant bu baax moo ngi leen di gërëm bu baax a baax moo ngi leen di jaajëfalit bu baax waaye nuyoo bi ak cant bi dañ koy teg ci loxoy alalu maam seex Ibra Fall muy sëñ Omar Seck góor yàlla ak alalu maam Cheikh Ibra Fall gi ñàndal gépp ndax lii sabab bi mooy ñoom kat moom ñoom la sëriñ bi defal tawféex ñu xalaat ni kat war na noo yeesal kër sëriñ bi ñu ñëw laaj sëriñ bi ndigal sëriñ bi jox leen ko te ndigal laa ngi tàmbalee woon ci miire kër gi ñu miire ko ba noppi seen xel jàpp ci ndog yi nga xamee ne lañuy toggal sëñ Bamba te sëñ Touba Cheikh bi Fall wax ni ku ma jox lu tolloog tànk ma defal la ci defar gu dootul yàqu boo faatoo ma tàbbal laaj na sëriñ bi defal leen taw féex ñu laaj sëriñ bi ndigal sëñ bi jox leen ko ak ñi leen ci fekk ñëpp ak njabootu sëriñ bi. kon tey liggéey boobee nga xamee ni mooy mbaar mi bi liggéey bi demee ba li ci ëpp sotti kon Seydina ma sekk jërë ngeen jëf jaa jëf na ku jëfa ko moom ku jëful bokku ci ndokk bi ngeen di liggéeyalee ku amu pay ndax boroom kër gi ku am pay la kenn ku ne xam na ni yëngoom ak dalam gépp da ko jeexal ci sëñ Modou Moustapha Fall ak njaboot sëñ Modou mu Fall gi fu mu mës a ne ci àdduna it ndigal rek moo ko fa mës a bàyyi waaye xam nañ nit tey sëñ sëñ Moustapha Fall fay na ko Cheikh Ibra fay na ko ndax diir gi fi toogee ci lalu Cheikh Ibra Fall gi tey jii mës woote leen lu jëm ci boppam lu mës a woote lu ne lu jëm ci kër sëñ Touba la kon ñoom ñii nga xamee ne ñooy alalu maam Cheikh rek bu ñu ñëwee di yeesal kër gi xam ngeen ne mbaar mi li ci jiitu muy fu ñu toggee ndog yi sëriñ Fallou mu sëñ Modou Aminata moom la ko sëñ bi sason mu defee ko nu kayam njort ndax ku santul nit doo sant yàlla ndax wa maa sayib naa illaa bi ma loole nag li des ci liggéey bi alalu maam Cheikh Ibra Fall ñoo yeesaraat liggéey bi mooy ñoo miire kër gi ak mbaar mii kon jantub tey jii nag ak mbooleem ñi nga xamee ni fekk nañ leen ci ci biir liggéey bi ndax gannaaw bi leen ko sëriñ bi sasee ba noppi njabooti sëriñ bi tàbbi nañ ci murit yi nga xamee ni ñoom kat amaana sax duna ay bay Faal tàbbi nañ ci ak bon volonté yi waaye ñoom ñii kat ñoom la sëriñ bi sasoon liggéey bi kon jaa ngeen jëf jaa jëfati sëñ Cheikh Fall nag dafa am lu mu wax dane yoon suñ ko dee wax kuy dox a tax ku doxul bokku ci waaye yéen day sëriñ bi wane na boppam ci yéen xam nañ ko bu baax ndax seeni at bariwul ci sayir seen wërsëg mateew ko waaye wax ji bi Ibra waxoon sëñ yaaram mbay moo siwaat mooy bëggut te dëpp fu ne mënees na faa yóbbu góor waaye ñun xam nañ ni sëñ Cheikh jëmb tàbbi na seen biir te dimbali na leen ndax fi jamono toll ak yëngu-yëngu yi fi mu toll ngeen am pas-pas bu ñu toll xam ngeen ni ngeen di liggéeyal am na pay te tàbbi na seen biir defal leen way woo xam ne dootul fay ba ilaa ajalin musamman ndax seetaan ñeetaan ku def dara am dara ku deful dara doo am dara def ngeen dara te sëriñ bi am na fay te dana leen fay leneen la ca jàllaat nag mooy kenn ku ne xam ne ni ab Baay Faal du wàcc mbaar mi li ci ëppoon solo jàll na bâtiment soxna yee nga xam ne njabootu kër sëriñ bi ñoom la ko sëñ bi sas ñu ne ci ba ajjuma ji ñu ñëw lañ koy kuule kon ngeen jàpp ni loolee kat ñun ñëpp la war waaye sëñ bee leen di sant bu baax ci ñaari kuulaas yi jàll ba jëkk bi ak tey ndax quatre heures du matin ngeen xëy waaye sëñ Cheikh jëmb yàgg naa gone yi lum mës a woote ca boobee toggul ci lalu Cheikh Fall gi moo gone yi la woon kon tey jii boo leen wootee liggéey kër gi gone yi ëpp ci kon moom yàgg naa gone yi waaye dafa am wax joo xamee ni sëñ Maguette mii moo ma koy fàttali. Cheikh Ibra dafa wax ne bala may denc gone muy kàpp-kàppal di julleeg woor te xam ne gone mënta jaamu yàlla daa war a liggéeyal boromam waaye baatu gone mënta jaamu yàlla daa war a liggéeyal boromam nag dafa mel ni gone yi loolu lañu xam dem liggéeyal Cheikh Ibra Fall mi pay muy borom kër gi na rafet njort na ngeen di dalal seen xel bu baax jamono yi ñu toll nag day Serigne Cheikh jëmb mooy maam Cheikh Ibrahima Fall jamono jii ñu toll nag kenn amatul lay moo ma ne wuutuuma Cheikh Ibra teg loxoom ci dëndam ne ma man la diir gi fi toog ak tey jii kenn ku ne xam na ne mooy maam sunu Ibrahima ndax mboolem lu fi Cheikh Ibra Fall bàyyi woon yeesal na ko nangeen xam ne boo liggéey nag seen pay dana ko seedal Cheikh mu Fall may bàyyam dana ko seedal Cheikh Ibra Fall mi nga xamee ne moom la wutu saayiran wa baatinan sëñ bi beral na leen cant beral na leen ngërëm boo leen fi jógee da ngeen di yokk ba ilaa ajalin mu te dootu leen delti ginnaaw ndax borom kër gi am na fay jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf sedd na guy ngeen tàllal seen loxo seen jili fay ñaanal leen ñu wàññ ajuma ji di ñëw mbay jëwriñ nag dan ko beralu cant mooy maçon sëriñ bi nga xamee ne du laaju pay du nu fitnaal ci lenn yi tey sëriñ bi rek mooy solom ndokk ba yàlla dul jaawale jëf yi sëñ bay ñoo ngi lay ñaanal ci daraja yi borom kër gi yàlla na sama borom guddal saw fant wéral la te defal la tawfiix ndax yow bu nu amee fit ci liggéey bi yàlla ak yow la jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf boo leen fi jógee di ngeen yokk ba yëg ni yokk ngeen ndax borom kër gi aw noo fay tàll leen seen loxo seen jili faal ñaanal leen wasalaamualeykum wa rahmatullah amiin mooy nangum ñaan de amiin mooy nangum ñaan amiin raayoo leen bismillah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu euh, mbokki jullit mbokki taalibe yi euh, soxna Diagne Cissé Diallibatul Maraaxib sa pay murid bi ma ngoon Fall moo teew fii ci buntu kër Serigne Cheikh Jumba Fall xalif général des Baye Fall fii ci Palen Mbacke Bawal ànd ak mboolem waa daahira alalu Cheikh Ibrahima Fall euh, murid bu mag ba Euh, ci euh, euh, ci njiital jëwriñ ji général Seyna Omar Nourou Darayni jàmbaari Serigne Cheikh Fall Jëmb waaye laata loolu rek ñu ñaanal bu baax Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall yàgg fi lool ci ànd ak wér waa daara ji rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal ci kër gi ak mboolem mbokki taalibe xam ñoom ñoo teewoon tey fii ci ñaareelu coulage bi nga xam ne moom lañ doon kure mbaar mi nga xam moom la ñuy toggalee euh, ndogu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul suñu yaakaar tey ëllëg ñaari jëm kenn ci taxawaayu waa daara ji euh, ci loolu nag ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne teew nañ fi rawatina waa daahira bii di euh, alalu Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ma ñoo xam ci réew ma la ñu nekk moo xam ci biti réew ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal bu baax a baax a baax ah, fan bu gudd wér gi yaram xew ju bari lool ngërëmal borom Touba ci doolay euh, xasida yi ndax ñoo ko gisandoo waaye nag ba léegi nag liggéey bi euh, jeexagul des na kon nag ba léegi rek ñu ngi woo ñëpp rek ñu ngi tàbbal seen àddee ci li nga xam moom mooy euh, liggéey bii la dexew fii ci Palen Mbacké Bawol ñaari Baye Fall kër xalif général àddee Baye euh, euh, sunu waaja murit bu mag ba ku lu koo xam ne nag am nga pas-pas ak yéene joxe sa àddee nga ko dugal ci numéro Orange Money wala numéro Wave yi bu dee Orange Money la ak Wave ci turu Omar Seck 78 534 89 11 78 wala ci numéro Diagne Cissé Orange Money la waaye Wave la ci 77 649 95 88 77 649 95 88 moom tamit Orange Money la waaye Wave la ci turu Diagne Cissé su ko defee rek dinañ leen tàbbalal seen addiya ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi euh, jëm ci euh, mbaarum ndog wi ndax kenn ku ne xam na ne mbaar bi war naa am ay grillage war naa am ay giri war naa am li nga xam ne moom mooy ay ventilo waaye lamp yaak raax baak peinture ba lépp dañ ko war a def ndax dañoo war a yeesal kër gépp waaye ni ki ajuma ji ñu jëm tamit ci lañ fas yéenee def coulage bi nga xam ne moom moo jëm ci bâtiment soxna euh, muy ajuma bi ñu jëm ñu ngi ciy woo mboolem euh, foyer ne rek ci réew wala ci bi ci réew ñoom da ñëpp rek ku ci mën a teew nga daal di joxe sa addiye ku mën a ku mën a teew baax na ku mën a teew tamit soo sa ñàkk teewee rek mel na ni euh, teew nga nga joxe sa addiye rek bu ko defee ñi daal leen koy defal a ci liggéey bi waaye ñu ngi woon ñëpp di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax Ah, sëriñ Magay Ñang mi nga xam ne moom moo nekk ak sëriñ bi Baye Cheikh Mbaye waaye Baye Omar Dumbuya suñu yaay Soxna Mbaye si la ah, Baye Fall Baye Jëmb ak mboole waa kër gi yëpp rek ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di leen jaajëfal sëñ Jibi Jaan ñoom ñëpp sëñ Mbaye xéwal waaye sëñ Mbaye maçon ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen taxawaay ci li nga xam ne moom moo jëm ci euh, liggéey bu kawee bi nga xam ne alali Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy liggéey Serigne Cheikh Fall jëm ndax kenn ku ne xam na ne Serigne bi moom talul kenn ku dul euh, Serignam di Serigne euh, Mountakha moom ku fi nekkal maam borom Touba rek lu mu am da koy daal di jox talu ta ja sax saako ciment def ko ci li nga xam moom mooy këram gi moo tax nag ci biir loolu waa alal ji daal di fas yéene taxaw bu baax a baax ndax moom kat nee na alali Cheikh Ibra Fall ñoom ñooy ay njabootam te kenn ku ne xam na la war ci diggante njaboot ak waajuram ba tax na ci biir loolu ñu daal di fas yéene rek nag di jaayante dundu weer wu jot waaye tamit yeesala ko këram gi à biir ak biti buñ paree monté fi énergie solaire lamp tàkk bu ko defee rek lépp daal di àndandoo rek gën a taw féexe euh, nañ ñaan nag mu fekk lépp waaye ñëpp fekk lépp ci dooley xasida yi waaye noonu lañ jaajëfalee waa Assalaamy TV ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal euh, ndeysaan liggéey bi jamono ju ne saa ne fu tolluwaayu liggéey bi mooy jëwriñu alal Cheikh Ibra Fall di Seydina Omar nooru daara yi ni général bu mag ba maam Cheikh Ibrahima nangu ndigal waa jàmbaar Serigne Cheikh Fall jëmb ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax parce que taxaw ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñu liggéey bi ñoom ñëpp rek bàyyiwuñu kenn su ma limee du ma juum waaye dama dut matal waaye ñëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax fu ñu wootee danañu wuy si bu ñu laajee da ngeen joxe te ko ne xam ne li ci laaj waaye nag noonu rek la ndax jëf jël la te keroog bu ñu jëbbalee la cinq bi di weer wi dund weer wi euh, wax nañ lu euh, doy waar loo xamante lu daw yaram la ne nañ mbaar mii kat nga xam ne moom ngeen di liggéey ci kër gi moom mooy seen serluwaay bu ëllëgee kenn ko ne nag euh, kon nag loola kenn ko ne wala caa doxee positif ak taxawaay bu rafet rafet rafet ba loo am rek daal di koy def ci biir mbaar mi kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di di ñaanal ñëpp fan bu gudd wér gu yaram xewal yu bari lool ngërëmal borom Touba ci dooley Jalibatul Maraaxib waaye mboolem ñi nga xam ne ñi ngi topp jotaay bi ci site internet bi xam moom mooy Assalaamy TV ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal jàmm fan bu gudd wér-gu-yaram xewal yu bari ngërëmal borom Touba ci dooley uh, Jalibatul Maraaxib jërë ngeen jëf wasalaam jërëjëf borom Touba. mbokk yi bu ngeen bëggee ay xibaar yu wér te wóor visité leen sunu site internet. asalaami point net wala ngeen visité suñu chaîne YouTube Assalaamy TV mën ngeen ci abonné sax su ngeen bësee ci bouton bu xonq bii bu leen fàttewaale bësaale cloche bi ngir bépp xibaar boo xam ne dugal nañ ko ngeen mën di ko am ci saase moo xam ay reportage la ay émission ay documentaire yu am solo lépp rek ngir jox leen ay xibaar yu wér te wóor ñoo ngi ci réseaux sociaux yëpp moo xam Facebook la Instagram ba ci Twitter fu ngeen ci dem rek daa ngeen fa fekk xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di jox muy bàyyeekoo ci Assalaamy ak Assalaamy TV jox leen ay xibaar yu wér te wóor rek mooy suñu yitte.